mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen nuyu bu baax nuyoo bi gën a tedd te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci daayira bii nga xam ne mooy daayiratu asaabul jannati bi seetal jumaay Tuubaa ci jëwrin ji nga xam ne moom lañu àndal muy sëriñ Abdou Lahad Bousso bàyyi ko ci kilifa gi sëriñ Babacar Bousso ñu jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Nil Muntaqa mi nga xam ne moo fi toogee jataayub Cheikhul di ko ñaanal yàlla sun borom subhaanahu wa taala bu baax yéene yi nga xam ne moom la am ci liggéeyal sëriñ Touba mu àggale ko na mu ko bëggee te it ñu ànd ko ak moom kon dairat ashabul jannat ni mu baaxoo ñëwee fii ci kër soxna Maymunatu Mbakke bint Cheikhul Xadim saa buñ agsee ci waxtu yi muy lu yàgg loo xam ne bay sëriñ Bousso bi Bousso ak ñi mu àndaloon daayira bi ñoo ko sosoon saa bu laylatul xadarul jege ñu ñëw fi mu ñëw fi ànd ak soxna yi saafonte ak soxna si génne àddee joo xam ne da koy jox mu defal ko ko ci bis bi ngir jëmmi sëriñ Touba. loole nag di lu yàgg loo xam ne daayira bi ba mu juddoo ndax wax nañu ne Baye sëriñ daayira bi mi ngi ko sos ci bi nga xamee ne sëriñ Saaliw Mbàkke toog na xilaafa ba am ñetti weer ci la Baye sëriñ ñëwoon ci sëriñ Saliou àndoon ak lenn ci ay taalibeem ne ko ñun de dañoo amoon yéene setal sëriñ Saliou ne ko seen bëgg xam naa ko jox ko ndigal ne ko na ngeen di seetal jumaa ji alxemes ju jot ndax ñiy julli si àjjuma bu ñëwee am fuñ mën a nekk yàlla àtte keroog bis booba dafa taseeg soxna may moonatu mii ndab yim daa toggal sëriñ saaliw bay sëriñ nee na dafa taseeg moom mu ne ko sëriñ Moustapha moom sëriñ saaliw nee na mu nga ca jataay ba mu ne ko ndab lee nga xam ne soxna may indi na ko fa nañ ko jox bay sëriñ ñu tàmbali ci seen xéewali ëllëg loolee nag bañ génnee ci lañ yëg ne soxna may delloo ko njukkal ci bis bii nga xam ne moom lay def waxtu wu ne war na keroog bañ jotee ndigal li ak léegi nag bis bu set soxna yi nga xam ne ñoo àndoon ak Baye Serigne muy loo xam ne néewoon nañ lool jamono booba waaye sunu borom def na ci tawféex ba léegi yaatu na lool ñuy ñu am pësteef ñoo xam ne waxtu wuñ xëysee ci jumaa ji danañ fexe ba buub ko ba set ñu raxas ko ba mu set lépp loo xam ne lu ñu war a dindi la ñu dindi ko ànd ak orma ji nga xam ne moom la barab bi laaj ñu def ko nañu ko bëggee saa bu wax weer jotee nag seen xel ak seen xol du jug ci soxna si ngir xam guñ xam ne seen jawrin bay sëriñ bu soobee bu so ni mu fonkee woon soxna may ñun ñi nga xam ne ñooy ak njabootam kenn ku ne ci ñun mën naa wax digganteem ak soxna may diggante boo xam ne yàgg na lool ñu ñëw fi ànd ak moom waaye dañuy gis pësteef bi mu ciy doxee ak taxawaay bi mu ciy doxee loolee tax bi yàlla dogalee bay sëriñ jóge fi kilifa yi ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi di sëriñ Babacar sëriñ Abdoul Ahad mii nga xam ne mooy jëwrinam liggéey boobee nga xam ne bay sëriñ doon na ko def ànd akook daayira bi di ko indi fii ci kër soxna si ñu laxasaayu lépp loo xam ne lépp loo xam ne nii sa bàyyi sëriñ da ko ci daa def dañ koy yokk waaye duñu ci wàññi dara daayira bi nag jaayante fas yéene suukar si nga xam ne mooy dem ci laylatul xadri lépp luñ ci man ñu di ko def moo tax ñu dajale seen hàddiya dikk indi ko ànd ak sëriñ Abdou ngir ngeen defal ñu ko ci bisub bi nga xam ne mooy bisub laylatul xadri te ku ne xam na ne alquranul karim wax na ci wax joo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko laylatul xadri xayru min alfi shahrin genn guddi la goo xam ne boroom xam-xam yëpp sun borom subhaanahu wa taala wax na ne moo gën junniy weer te junniy weer mën naa toll ci juróom-ñett fukki at yu tegal nangam loolee nag ku yàlla dogal ku yàlla taw fee guddi goo xam ne moo gën junniy weer lay dem ca guddi ga saw saw ñaq di ca bokk loole rek bu ci bu ci yemoon mu doy sëkk rawatina bi nga xamee ne dañ koy yëkkati mu doon liggéeyub sëriñ tubaa ndax ku ne xam na ne lii bi ko soxna may di taxawal am li ci sun borom subhaanahu wa taala xam na wax xam na ko li nga xamee ne moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax xam na ko waaye xam naa la yéeneem dëgg-dëgg mooy liggéeyale ko sëriñ tubaa moo taxoon mu taxawal ko te sëriñ tubaa nag lépp loo xam ne yëkkati nga ko muy am xel muy luy jóge ci poos mu aw ñaq nga def ko ngir liggéeyal sëriñ Touba la la cay fekk lu lu kawe njott lay doon ndax koo xam ne dem na la ba ba ne sunu borom subhaanahu wa damaa xamal ne ma ku la liggéeyal jariñu moo tax ma bëgg a liggéeyal sama bopp kooku kon ku ko yàlla baaxee ngay jël saw ñaq ngir liggéeyal ko sunu borom subhaanahu wa taala nar na laa dimbalee tey ak ëllëg kon nag loolee tax dayre bi euh, soxna astu sëriñ Abdou Lahad daayiratu asaabul jannati ci fondation boo xam ne fondement boo xam ne Baye Serigne moo ko defoon ba léegi tànk yooya nga xam ne Baye Serigne moo ko sampoon ba léegi waxtu wu nekk daayira bi du ci dox tànk gannaaw mukk tànk kanam rek la ci fas yéene dox ànd kook jëwrin yi diggante bi nga xam ne moom la amoon ak soxna Bali diggante bi nga xam ne moom la amoon ak soxna baali ñun ñëpp xam nañ ko wala ñu bari xam nañ ko ndax sëriñ Cheikh Abdou mi ñëw nañ fi bataay ànd ak Baye Serigne ñëw fi fekk ko fi ndax bàyyi sëriñ sax su masaan jaar ci soxna Baale ba jik ba wàññi ko lu ci ëpp dara jaar ci Seex ab Lahad mi ñu saafante nu yónti loolu du benn du ñaar jàppante goo xam ne am nañ ko jàppante ak biir soxna Baali ba tey mu doyloo ko woon lool ci yu baree bari yoo xam ne mënee su koo nettali fii daana toog waxtu yu nekk di yónnee ci bay sëriñ yoo xam ne mbiri biiram la kon nag kóllëre googa nga xam ne bay sëriñ sampoon amoon na ko ak diggante ak soxna Bali mu tàmbalee ci soxna May kóllëre googa njaboot gi fas yéenewuñ ci wàññi dara lépp loo xam ne lu koy sooxat jëmale ko kanam ci lañuy taxaw kon daal ñi ngi leen sant di leen di leen gërëm te di leen xamal ne it yéen ñi nga xam ne yéen lañ fekk si muy soxna astu ak sëriñ Abdoul Ahad soxna astu mii la nga xam ne moom la soxna bàyyi nekkoon ci diggante boobu moom it wàññiwu ci dara ndax barki dee moo njaay rek sëñ Abdoulahad mii mi ngi woote dañu xamal ne teraanga ji kat sëñ soxna astu moo ko fi yónnee ci kër gi loolu jekk ba yàgg rek nga xam ne foofee kat kóllëre war na fa am am na kóllëre sa diggante ak moom nga yëkkati ay teraanga yónnee ko fa loolu rek ak yëg la loolu def na ko bu yàgg ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënee su ko kon buñ fas yéenee ñun di sàmm kóllëre it yéen fekk nañu leen ci fekk nañu leen ci ngeen kuy sàmm kóllëre ndax fàttewu leen ko benn yoon sëriñ Cheikh Abdou it macha allah kóllëre gi nga xam ne moom la bàyyi sëriñ seqoon ak moom waxtu wu nekk loo xam ne kër gi xewle na bu ko yëgee dana sol aw dàllam ñëw ba fekk sunu fa barab ba barki démb Njaay bi ñuy màggal sëriñ Mbàkke Kan ca kojale sol na aw dàllam ñëw ba teewe jataay ba saafonte ak mbokk yi ak waa kër gi it kon loolu it jàpp nañ ko yëg nañ ko njaboot gi yëpp bàyyi nañ ko xel xam ne safoot gi nga xam ne moom moo war a am ci diggante mag ña yéen yeneen a ngi koy soxal kon yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla dimbale te taxawuñu ba kóllëre yi nga xam ne ñoom la mag ña amoon te kóllëre googa la ca jiitu muy li nga wax léegi mooy bokk gi ñu bokk sëriñ muy loo xam ne kenn mënu koo séddoo te suñu defaroo tey ak ëllëg ci la kon yàlla na ko sunu borom subhaanahu wa sàmmal bu baax a baax ba li nga xam ne moom la ñuy séentu muy nekk suñ kanam te moom murit bu ne mooy yitteem mooy ngërëmal sëriñ bi yàlla nañ ko suñu borom defal ci yëngatu bu yëpp boo xam ne yëngatu nañ ko muy yëngatu xel wala yëngatu poos wala yëngatu aw ñaq jëme ko ci sëriñ bi yàlla nañ ca dajee ngërëmal sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulah. di leen sant nag bu baax ci seen taxawaay fii. nee na bala mooy tàmbali ngeen may ko mu nuyu sëñ Basiiru nii mu dendal nga xam ne mooy taawub sëriñ Abbas Mbàkke doon siyaare rek ci bis bi ñëw yam ci lii loolu di gën di xéewal ci ñun ñëpp kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare nee na di am mbégte nag ci dalalaat fii daayira asaabul janna muy daayira boo xam ne ka ko sosoon di bàyyi sëriñ moo soxna Maymuna benn lañ woon mu amoon ci moom pas-pas jàppe ko sëriñ Touba ñu seqoon kóllëre ak doy loonte gu mat sëkk doxoon ci seen diggante bàyyi sëriñ dey fii daawu fi jóg waxtu wu ne fekk na la fii ci kër gi waaye xam ngeen cër bi soxna si joxoon soxna su mi fi nekkoon nee na loola astu taxutoon bàyyi sëriñ a taxoon moom la fonkoon jàppe woon ko rek jëmmi bàyyi sëriñ ci wetam moo tax mu doxale woon noonee kóllëre googee di kóllëre gu yàgg soxna baali doon na ko ñu seq ko ñoom ñaar ba seq sax loo xam ne xam ne loola àggutoon sax ci diggante Baye Serigne ak Soxna May. soxna Baali wóolu woon ko ci Zahir ak ci baatin. ñu daan jëflante. loo xam ne ñoom ñaar képp ñoo ko daan xam. te lépp rafet. Baye Serigne daan ñëwal boppam. bu daan ñëw itam. ca foofee. daaw fa bàyyi menn mbokkam. muy sëñ Maamun ñoom ak sëñ Basak ñëpp. ñoom ñëpp la daan àndal dikk naaj wu tàng jër te booba loola wàccoon na ko li mu doon wax léegi sëñ Mut Lamin fi jógee kon nag bu ngeen demee ba gisatu leen ko. kon bu ngeen demee ba gisatu leen ko. ngeen taxaw taxawaay bu rafete nii. ngeen taxawaat taxawaay bu rafete nii. ci ginnaaw sëñ Babacar mii seen xalifa. téye liggéey bi. nag liggéey bi. yóbbu ko foo xam ne. yóbbu ko foo xam ne. bàyyi sëriñ bàyyiwu bàyyi sëriñ bàyyiwu ko fa woon. xëy na sax lii ngeen ci man moom mënu ko ci woon loolu suñu xol da ciy sedd kut kuy soñu soppe di soppe bay sëriñ dana ci am mbégte mu rëy te loolu day firndeel rek liñ doon wax léegi wala sëñ Fallou Ka mooy sëriñ Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam la am te feeñ na ci daayira bi ngeen yoral sëriñ bi lim gën a fonk muy setub jumaa ji loolu foog naa ne benn liggéey féetewu ko kaw moo tax xam nañ ne bis bii ci bisi sëriñ Tuubaa yi la moo tax ngeen boole ko ci seenub liggéey nga xam ne ba tey jii génnu leen sëriñ bi bis boo liggéey yéen nga poroxaan bu ngeen fa jógee yéen ngi ci màggal gi kon day mel ne fi ngeen tënk moom alhamdulilah. waaye li nga xam ne moo suñu diggante nag. nag li nga xam ne moo dox seen diggante ak ñoom. nee na doonut lu ñu toog di ko waxati. ndax mën naa ne ñu ba tey. ndax mën nañ ne bi ñu ràññee ba tey. sëñ laat mii. tàggoo wunu benn yoon. ca léppay rafet. te lépp itam. ci toolub sëñ bi rek. lañuy daje. kon loolu dañ ci sant yàlla. kon. ci tuuru soxna Astou. mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne li ngeen fi indi da ngeen a baax rek war warlul ko seen bopp waaye kenn tegu leen ko kenn du ko séntu woon ci yéen itam nag ak ñaan la ñuy séntu ci yéen muy la bàyyi sëriñ seqoon ak soxna Bali ndax lu doy nii ku ko toggoo soxla nga jàppale soxla nga ak ñaan kon nag loolu yéen sase nañ leen ko ndax niti alxuraan ngeen ay imaam ngeen te ba àdduna tukki du ngeen soppi ko loolu rek ngeen di doon day mel ne loolu sëñ bee ko jagleel kon lii seenu baax la rek waaye doonut loo xam ne war teef la suñ diggante na ngeen xam ne daal bàyyi sëriñ moom kër gi du ko fàtte mukk ci àdduna lam seqoon ak kër gi loole lépp jël nañ ko ak lam seqoon ak mag ñi ñu boole ci suñ sequ bopp lépp jooyal ko ci yéen nee na suñ xol sedd na ci yéen sëñ Babacar it na ngeen ñu ko santal na ngeen ñu ko gërëmal fa mu nekk amul jot waaye comme am yitte la léeg-léeg sax mu woote te man xëy na miinante gi demewut noonu waaye nit ku baax la ndax bu ngeen taxawee nii lu ko neex la te moo ko jiite moo ci joxe it ndigal kon nee na bi mu ñëw rek mi ngi woote nee na sëñ Cheikh Abdou nee na daa xam yitteem daa xam yitteem moo tax moo tax ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm santal leen ñu nag soxna yi ànd ak yéen yëpp nag di leen ñaanal sëñ Touba nangu seen ub liggéey te yàggal leen ñu yàgg ci seen loxo lool te lépp lu ngeen ci bëgg suñ borom defal leen ko ba xol yi sedd na guy fii ni moom seen këral nee na fii mu toog daal man ngeen fee toog kenn ëppalewu leen fi loolu la yàlla dogal bàyyi sëriñ liggéey na ko sàmm ngeen ko dox ngeen ko te bis bii lañ wax léegi attan na lu ne bis boo xam ne daa dem ba sëñ bi di ci ñaanal boppam booba bis bis tolluwu ni kon nag ci darajey bis boobu yal na yàlla faj seeni aajo yéen ñépp guddal seeni fan làq leen nag ci biir làquk sëriñ bi te xam ne loolu doo ngeen bëgg te rafet nañ ci yor ndax seen jëf ci pas-pas rek la te du neen mukk nag ci àdduna jërëjëf